waa Géejawaay yéen a aaye la jeunesse la jeunesse patriotique xam leen ne lii Macky Sall di def nii gest de désespoir la Macky Sall lii muy sànni ay lacrymogène ak ay saxaar maanaam dafa désespéré borom pexe bu jeex bu ne nii lay doxalee borom pexe bu jeex nit ku amul fit ku ne nii lay doxalee ñi am fit duñu doxalee nii est-ce que gis ngeen Sonko mu jël benn signe de violence non est-ce que gis ngeen Sonko ak ñi mu àndal ñu tàmbali benn violence non waaye Macky lu mu sombi dinañ ko naan lu mu fonde dinañ ko naan na pare rek moom tànk mi ngi am fit na doxal dinañ ko won kan moom réew mi bu dee moom moom réew mi wala sénégalais yee moom réew mi dinañ ko ko won Macky xamal ne pare nga de pare nga c'est fini pour toit tey wan nañ la ne tekki woo dara wan nañ la ne amul dara loo xam ne yow représenté nga ko ci Sénégal les Sénégalais on di oui au président Ousmane Sonko le département de Mbacké Mbacké a dit la région du de Diourbel a dit oui Mbacké Bawol nee na waaw nee na Ousmane Sonko la nu gëm Macky kenn gëmatu la kenn kenn kenn gëmatu la c'est fini pour toi soo ko gëmul génnal nga wër réew mi génnal nga wër réew mi bañ a yóbbaale il faut pas charger tes car là et les amener génnal nga wër réew mi Sénégal gat sa rek bu soobee yàlla duñ la mayati dara koo dóor mu fayu koo leen saaga mu fayu incha allahu rabbi gars yi pare leen suba géejawaay ñu ne le maire de Kër Massar <laughs> gars yi léegi gars enlèvement yi nag nañ ci nañ ci am fulla waay ah nañu am fulla nañu am fulla ak fayda nañu am fulla am fayda ci seen enlèvement yi nañ ci am fulla am fayda nañu am fulla am fayda incha allahu rabbi nañu am fulla rek fulla ak fayda fulla ak fayda incha allah fulla ak fayda rek dama ne bu leen leen déglu seen xol yi neexul tey waaja waaja moom jël na profilu Ousmane Sonko ba bind na ko waa APR yi déglul mu ne Ousmane Sonko 2024 léegi mag ma moom nee na man lay xas déedéet yow bokkoo ci Ousmane Sonko xam nañ la on vous connaît xam nañ leen nan dem rek incha allahu rabbi di ngeen am lu leen naqarit lool ci réew mi parce que fépp fu ñu neex ci Sénégal di dinañ fa dem gars yi ma tëjee nag euh, borom banaana bu lax bi dégg naa suspendre nañ ko les bâtonniers l'ont suspendu avocat bi yor banaana ba daan yëngal yëngal banaanaam nee na mënul jóg taxaw avocat ba dégg na suspendre nañ ko voilà l'avocat le bâton les bâtonniers l'ont suspendu suspendre nañu avocat ba borom banaana bu lax ba suspendre nañ ko incha allahu rabbi fexe leen lépp loo leen man suba suba ñu won waa Géejawaay ne dafa am président bu bees te président bu bees boobu Ousmane Sonko la tudd incha allahu rabbi suba nañu won waa géejawaay géejawaay nañ leen won ne Sénégal dafa am président bu bees te président bu bees boobu Ousmane Sonko la tudd ordre des avocats du Sénégal mi ngi nii borom banaana bi dégg naa banaana bi dañ ko suspendre tey man fu ma jëm borom banaana bu lax bi dañ ko suspendre le banana la banane lax a été suspendue borom banaana bu lax bi borom banaana yëngal yëngal du jóg taxaw yëngal yëngal defal ma nii yëngal yëngal defal ma naa il a été suspendu ordre des avocats du Sénégal monsieur El suspendu avocat bu normal dafa war a bàyyi ci biir tubéyam waaye waa ji fu mu yëngatu génne ab banaana teg ko ci kaw table ablaay Banaana du yeewu mu naan xale yi defal leen ma ko defal leen ma ko laa un avocat avocat Ablaye Banaana dégg naa il a été suspendu ah yéena de néeg leen ndeysaan boroom rek ka ciy fanaan la nga yéene woon Ousmane Sonko Ablaye Banaana dafa mel ni de ah Ablaye Banaana dafa mel ni say bagage yàqu na temps yi de temps yi sa affaire doxul de saa yi moom sa affaire doxul Ablaye Banana Ablaye Banana ça marche pas yow ñaari mbir yu dul marché banaana marché wul avocat tamit nee nañu ñu fexe jëlee dafa parce que yaa ngi yàq seen der parce que avocat yi kontaanoon ci yow parce que ni nga nekkee ci dëkk bi yaa ngi ci ay viol répétitif violé nga doomu jàmbur France yaa ngi wër Sénégal di génnee sa banaana bi rek naan xale yi jigéen yi def leen ko fii dugal leen ko fee te loolu àndul ak métier avocat voilà ton banaan doit rester dans ton pantalon là où il doit rester waaye wër dëkk bi yëpp ci banaana bu doxul nga koy génne di yëngal nee nañu tin peut même pas faire xaw ma lan ndaw see ko wax man waxuma de nee nañu da koy yëngal yëngal ça peut même pas bouger léegi banaana bi gars yi suspendre nañ la nee nañ la nga fexe nga garde sa banaana sa biir tubéy parce que avocat nga avocat warul fu mu dem rek génne banaanaam teg ci kaw table bi ne defal leen ma ko nii voilà am na nag ministre boo xam ne aussi ci Sénégal ministre Abdoulaye Daouda Diallo moom it même problème mu banaana boobu am na ko xam naa nag fan yii dinañu génne audio bi rek gars yi nanu xaar ba Ousmane Sonko def euh, tournée mi ba pare comme sa ñu ñëw génnee mbiru Abdoulaye Daouda Diallo bi tamit parce que moom it bëggoon na fee teg nit ci kaw table ne du signé ay document il faut mu dugal génne voilà donc moom it il faut xam naa ñu génne affaire am yi ci fan yi waaw gars yi kontaan nañu lool waay kontaan kontaan nañu waay on est content oh. waa dañ ko suspendre de Aïssatou Bas <laughs> waaw dañu suspendre borom banaana yi ah waa mbake Bawol Mbàkke sedd ngeen xol de Mbàkke sedd ngeen xol de xaar leen ma may leen kokos yi yéen sedd ngeen xol xaar leen ma may leen koko si ana koko si ah koko ana nga koko vient xaaral ma may leen koko si waa Mbàkke Bawol koko eh, si waaw xaar leen ma ñëw may leen yeen koko